le président il est président de la République il est président de la République il n'est pas premier ministre il n'est pas premier ministre il n'est pas le premier des ministres C'est nag fonctionnaire yi boo qui ci yi nu administration du il s'adresse à l'ensemble de la nation à un moment donné Maintenant, na pas def un état de la nation comme nous avons États-Unis ñaari weer ñetti weer yu nekk le président de république ñëw toog wax ak askan wi yépp nag wax fa la euh, nation bi toll waaye mënuloo falu amagut sax weer nga war di envoyé lettre lettre ki ko war a envoyé li mu la ko waxee moo di ki nga xam ne mooy premier ministre nekk itam le premier des ministres nga il est le chef du gouvernement ministres sont responsables devant lui mom le président buy am le muy wax ak li muy jëf da ko jaarale ci premier ministre premier ministre bi wàcce ko ci ay ministre am ministère am yi wàcce ko ci seeni daaj seeni saaj seeni cabinet ak seeni ministère noonu la war a demee du loolu rek dana mën a indi euh, jaxasoo moom nag li am moo di de le président nit ñi am nañ ci moom confiance li am nañ ci moom yaakaar nit ñi itam am nañ ci moom yërmande ndaxte xam ne que charge bi diis na charge bi diis na ci moom lool kenn ku dul moom itam ëpp ko ay at ëpp ko expérience ci administration bu toogee itam doon na am les mêmes problèmes quand nak, vraiment une bonne réussite une bonne réussite li wala yitam, possibilité possibilité di di ay pouvoir possibilité de ak li le supérieur de la magistrature

toogaayu taw war na nekk toogaayu borom kër war ko matal waaye du di wàññi ay pouvoir am di ko jox premier ministre wala muy wàññi ay pouvoir di ko jox ay conseil constitutionnel lii euh, professeur université boobu wax di Cheikh Ndiaye dëgg la Senghor vous moo fi indi woon réforme 1963 indi fi de 1976 la réforme constitutionnelle boobu demee Ablaye Wade indi la réforme constitutionnelle Ablaye Wade demee Macky Sall indi fi la réforme constitutionnelle Moi, li mu mën def le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye indi tëgg beneen constitution bu bees ñu soumettre ko à un référendum référendum référendum këyit bi ma la jox démb rekk ci suba loolu lay fàttali ci loolu lay wax lan mooy référendum référendum yi fi am muy ay référendum constitutionnel kon nag moom ma lu wàcc rek ne wàññi ba yore woon dama jox premier ministre deet du demee noonu lu damay dagg sama diggante ak conseil supérieur de la magistrature leen dafay dagg eh, relation bi entre le parquet ak le conseil constitutionnel mënu ko nous ko rek proposer réforme constitutionnelle constitutionnelles dit citoyens bu d'accord ci bu d'accord nga gis li nga am Togo Togo indi réforme indi le président Faure Gassimbe yàgg dafa indi ay ci constitution bi le président ñuy fal ki nga xam le président du conseil des ministres mu nekk un régime parlementaire régime parlementaire a na ay avantages am ay inconvénients na nit ñi toog waxtaan ci le président Jobay Bassirou Diomaye Diakhar Faye am na beaucoup de bonnes intentions waaye itam nag na def ndànk na def ndànk na def ndànk ndaxte erreur politique bu mu def rek il sera obligé de la payer te nag kenn yéeni ko ay erreur politique ba da def ndànk ba da def ndànk ba da def ndànk loolu eh, bëggoon naa ko eh, wax euh, qui mbir yi li le premier ministre euh, Sonko Ousmane le premier ministre Ousmane li mu tous les services administratifs dans au building et loolu le la lu ñu encourager la euh, président Macky Sall dafa raté joyanti ko ba mu rafet ñu yaatal ko rendre ko fonctionnel bobo léegi waroon nañ fa dëkk bañ ko tuddee Mamadou Dia euh, président du conseil euh, gouvernemental de la République du Sénégal depuis la loi cadre Mamadou Dia li incarné c'était la rigueur c'était le travail ji dañu bëgg rigueur ak travail boobu du ja dafa nekk personnage bu xaj bi daf ko incarné kon nag nañu gaawantu mën na ubbi bibliothèque bi bu lépp pare wul ci sam nag euh, muy pare ndànk ndànk waaye ni ma ko gisee ak li ci dugg yëpp ci xaalis war nañu def fii ñu toll wàññi frais yi wu ay bâtiment administratif yoo xam ne dañ koy conventionné mu di ay xaalis yoo xam ne yii dafay tas loolu dañu leen ci di encourager li ñuy wax na rationaliser soxla nañu rationaliser teg ci yoon soxla nañu teg ci yoon léegi daal question bi nga xam ne moo di diggante eh, Karim Wade ak Ousmane Sonko diggante kari Wade le PDS ak le gouvernement waaw ñoom dal li ci dégg yëpp daal doy na waar li ci dégg yëpp am na ah, doy na waar ñoom nag dañu échec te yàgg na le président Abdoulaye il a échoué politiquement il a échoué politiquement son projet c'était de faire élu son fils président de la République il a été recalé une fois sur Macky une deuxième fois sur et c'était son fils politique Il disait que c'était son fils aussi politique tey jii nii kii dem na kii jotul toog indicatif président amut waaye kii yittam nekk fa mu nekk ci Qatar waaw bëgg nag di diriger parteem di war di yi muy kii yooyu dafa doy waar dafa doy waar dafa doy waar yi ko li ko mën a rek di ko teg moo di négociation souterraine ay combinaison ne ñu ko italien di waxe rek ay ay ay ay ay ay këppatal ak ay xuubtoo yooyu dafa yerewu réew yerewu réew yerewu réew yoolu sama commentaire la bokkul ak lenn loo xam ni explication des faits scientifiques waaye nag boo seetloo da nga gis nekk euh, moom Karim Wade il n'a pas engagé de véritable bataille il n'a pas engagé de véritable bataille. Le PDS n'a pas engagé de véritable bataille pour ni tey jii nii di mën a seddu te nag li leen wax gouvernement bi du a seddu waaw kon nag mi euh, ngi doonu jërëjëf jërëjëf jërëjëf